ci ndigalu Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général de Tidiane dara jaale bakan ba kan Thierno Taha xalifa Cheikh Hadj Oumar al ca Louga mbokk juliti bis baa ngoog ci teewaayu Serigne Mbaye Sy Abdoul Aziz ak mboolem njabootu Cheikh El Hadji Malick mbokk yi bis bi kañ lañ koy amal ñu ni talaata fanweeri fan ak benn ci weeru décembre fu ñu koy amalee ñu ni amookaat ci ginnaaw jumaa ja ana kan mooy def waxtaan wi ñu ni imam maam góor toop ana ci lan lay wax xanaa ci dund sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaarale ko ci njàngale si El Hadji Malick ci téerim bi di xilaasu zahab fi sirati xeyril arab mbokk juliti bis baa ñu ngi ciy woo ñëpp والبنات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطيبة لا تؤم سواها فعساك أن تعظى برؤية طه